boo avant ngay liggéey sax ñoo lay jox permis de travail mënoo ñëw nag liggéey nii daanaka dañuy dëgër bopp dañ koy def liggéey ci suuf ñu ñuy fay. boo am waroo waroo liggéey. boo yoree visa amoo droit liggéey amoo droit liggéey. boo bëggee liggéey da ngay def bind ni dama bëgg a liggéey ñu jox la permis de travail di fay taxe saa yoo fayee taxe yaa ngi dimbali état bi. yaa ngi dimbali dëkk bi loolu la ñu yoree dëkk. mais mënoo bàyyi rek na parce que c'est la CEDEAO war a on est des panafricains dañuy tijji dëkk bi nit ñi envoyé non non non non Mauritanie bu ko defee dem dama ci ànd ak ñoom Mali bu ko defee dama ci ànd ak ñoom laa Guinée bu ko defee dama ci ànd ak ñoom ku nekk protéger sa doomi dëkk c'est ça l'essentiel donc on est de tout cœur avec Tahirou Sarr mm-hmm. Mm-hmm. lan la lay def euh, bi nga gisee président euh, Diomaye Diakhar Faye euh, fal kii di président Ousmane ko premier ministre loo yaakaaroon la wala yaakaaru ko yaakaaroo ko woon yaakaaroon naa ko parce que gën a jege gën a yey bettu la bettu ma parce que ñoo ko xeexandoo ñoo ko defandoo et que jeunesse bi dañoo am ci ñoom yaakaar bu ñu waxantee dëgg ñun dañoo am ci ñoom yaakaar et que man gëm naa ni yaakaar boobu du tas dina métti nag dina métti bu may wax métti sax nekkul ci côté sénégalais yi mm-hmm. mais avec l'impérialisme enjeu bi foofu la leen may jàmm ñoo ñu mën a tooxal mais bu ñu amee armée bu dëgër mm-hmm. population bu booloo du ñu mën ci ñun dara you know mm-hmm. mais au est de tout cœur avec son excellence you know avec président Ousmane Sonko c'est très normal que réew mi jaar ci yoon ba pare tey boo dégloo discours am lan la ci wax na mbir yi jaar yoon képp ku lekkoon alal bi na nga ko goqi you know nañu jàppante nañu dimbalante nañu àndandoo bay réew mi you lenn rek la la la la def loo xam ni mooy war woon gars yi bàyyi génn waa ji génn il avait à il avait à rendre compte dafa doon téye waa ji waaw waa ji waa ji war woon dem est-ce que du titre euh, titre ma ne la constitution protégé wu ñu woon ñun bi ñuy toroxal. mais tamit fi mu toll nii yow boo doon tey boo doon reproché njiitu réew mi yow lan nga koy reproché. haute trahison. haute trahison. toroxal say doomu réew rek haute trahison la ñu la fal. parce que yow avant ngay ñëw ci nguur gi tu n'étais rien. un pauvre type. qui n'avait rien dafa ko mere. ye ye ye da ye. mais tamit euh, mais quoi tamit. Oh, oh, oh, Sall Ngaare liggéey na réew. ñaaw na ñaaw na ba noppi. nekk na fi premier ministre. nekk fi nekk fi ministre de l'intérieur. ci xaalisu kan. waaw mais loolu. bu fe bu fi juddu fekk fi alalu alalu nday war a alalu bàyyi on peut mhm. mais fekkoo fi dara li nga doon ñoo la ko def. nga jàpp ñu toroxol yow bu xam gis nga bés boo xamee li nga xam ne moo xew ci jeunesse bi. ñi mhm. may woo téléphone. Mhm. Sankara lii moo ma dal. ndax rëbës. Sankara lii moo ma dal. Mhm. ndax bi ma nekkee prison Sankara lii chaque jour di la sollicité saa waay Bassirou Diomaye dafa baax. waa ji dañoo waroon pare prêter serment bi échanger rek ñu ne ko ñu woo ñaari colonel accompagner leen ko résident surveillée. waaw tey mais en tant que sénégalais en tant que sénégalais nga nekk xam li ci réew mi nooy jàngatee bilan président Macky Sall si 12 ans yi mu fi nekk. boo doon jàngat. dara c'est zéro. <laughs> sànqal bi sa problème ak moom. maanaam pendant 12 ans zéro. mais pendant 12 zéro mën na cee nekk. fukki at ñaar. saa yi boo yàqee jikko yi yàq nga lépp. 2019 dañ ko falaatoon de. kan moo ko ñoo ko falaatoon 2019. kenn falaatu ko ce des élections qui ont été volées dañu sàcc élection yi. am hold up électoral nga ko. dañu yi te ñoom xam nañ lu ñu def ñun ñun ñu nekk ci ci ci ci biir xam nañ ñoom li ñu def dañu yàq jikko yi sosal saaga yi saaga yi ngay gis ni fan la xewee ci seen nguur. jaay doole nit ñi. Mm-hmm. Ah, jël ay doomu jàmbur dugal leen ci kaso yi saay gis nga bés boo bés boo jege woon booy yi ba gis li booy di dund yàlla boo kamikaasu am telling you bés boo jege booy ba gis booy li ñuy dund lu metti li ñuy dund non non non non non moo tax demande sociale demande populaire la foog gars yi lijjanti ko. mais Sankara pourquoi bu leen arranger rek. ngeen di tàcc mais su leen su leen arrangé wul ngeen dañoo sàcc yuuxu sàcc élection ndax yaa ngi wax léegi ngeen ne 2019 da ngeen a sàcc élection yi parce que ki ngeen xamante moom ngeen bëggoon mu jóge fi mu njiitum réew mi moom la askan wi majorité bi ëpp doole tànn teg ko fi mu daal di gagné te eh, kii nga xam ne moom Ousmane sonk mi ngeen doon jàppal troisième position la jëloon kii nga xam ne mooy eh, Ndamal Kajoor moo na jëloon deuxième kon bu ci bu bu maanaam léegi li ngeen wax ne dañu sàcc élection su sàcc élection amul woon kon président de la république loolu la ñuy wax allusion of a conclusion damay jiital kii teg ko fa bala nga maa jot jot kii loolu rek la. loolu nga yaakaar ne moom. loolu rek la mais élection élection yi transparent lañ gis Sénégal tamit. yéen élection. yi 2019. 2019. en tout cas parce que askan bi ñooy gën ñooy ñoom waxoon nañu cinq candidats mooy am cinq candidats moo amoon waxoon nañu ñoom 58 pour cent dañuy gagné daanaka euh, résultat bi. c'était prémédité. loolu moom jaaxaloon na ñëpp waaw man boobu li ma ci gën a jaaxal euh, président Ousmane Sonko yenn information yi lan nga jàpp ne fa la ko mën a amee ne saa day xam loo xamante ni da koy wax avant te da ngay gis après loolu am. parce que nguur goo xam ni booy def lu ñaw saa waay nee la réew mi néeg bi ñu nekk nii ñun ñëpp mënuñoo bon ñun ñëpp mën nañu àndandoo tegandoo dara ci table bi mais dina am ku ci am dignité ku ci am éthique. bu tëddee rek du mën a nelaw. Mm-hmm. xelam du daal texte texte texte la ne la lii la gaa yi bëgg a def lii lañ ndar. loolu rek la. ñëpp mënuñoo bonandoo man fexeel nañ ma ci dëkk bi fexeel yoo xam ni bu dul woon ay nit ñu baax nit moo lay woo war a jabaru diw parce que ñu ñun tamit on fait partie des gens les plus informés de ce pays mhm. parce que on est accessible bu ma bëggee jot mën nga ma jot Instagram mën nga ma jot Snapchat mën nga ma jot TikTok mën nga ma jot Facebook mën nga ma jot ci sama réseau yëpp donc da ngay jékki-jékki rek nit woo la war a envoyé message mhm. ñu ngi lay waajal lii ak lii ak lii ak lii war a waxal diw lii ak lii lii dégg naa sa war sama ñoom papa de fii lañ toogoon ci salle bi seen doom yi ñooy génne seen i secret wala seen jabar yi wala seen gardien yi wala seen even seen chauffeur yi da ngay togg sa chauffeur ci ci ci ci oto bi di wax téléphone non sa Sankara il va il va falloir solution pour lui le boy la il dérange nga dem chauffeur bu woo doom ji mais Sankara kuy Sankara Sénat ñu fexe envoyé le message mais la moytul gars lii lañ lay waajal information yëpp day day remonté moo képp koo xam ne yaa ngi doon waajal mm. yaa ngi doon def lu ñaaw di ko def booy lépp yegsi na te xam nga leen. ñëpp xam nañ leen réew mi ba pare ñun bariwuñu ndakaaru fii ñun bariwuñu wuñu ASC bi bari wuñu ñëpp xamante nañ suñu biir boo xamee kii kii xam na kii kii xam na kee. Mm-hmm. moo tax moo tax ñun mun ñu fee defante lu ñaaw. loo fi def day génn. est-ce que gox gi mu wootee nii est-ce que jàppoo ni ndax gars yi fan yi ñu ngi gis benn photo buy daw ci réseaux sociaux yi ñu ne am na ko jot a daw est-ce que jàppoon ni waru ñoo sécuriser suñu aéroport yi ba ñu bëri ñu ñu njottoon ni ñu am benn njortees ni ñoom jën luubal nañ alal réew mi duñ mën a am accès pour génn réew mi. waaw c'est que dafa fekk ni njiit mënoo ko jiital ba pare di ko faxatal ñun lépp lu ñu xam ci géopolitique ñoom tamit xam nañ ko xëy na seen stratégie la. Hmm. dañ leen di bàyyi ñoom ñu doxal mais daal nañu xam ni daal demande populaire la alalu réew mi képp ku ko lekk di ko génne un deuxièmement politicien bu am alal baaxul ci réew troisièmement crime yi fi xew wala yi fi jot a xew foog ñu lijjanti ko mais tamit nan lañ naka la ñuy génnee xaalis parce que ki nga xamante ne bii lekk na xaalis ba mu rees da koy tëj kasam yokku ay détenu yi nga xamante ne ñoo fi jotali wala koy sas loo xam ne da koy war a fay travaux forcés lu muy daan da koy liggéey naka ngeen naka la nga yaakaar ne loolu la ñu war a mën a pour ñu mën a fay alal ji nga xamante ni maanaam ñu jote boo xam ne bu ñu demee ba tëddal benn benn opération pour ñu épingler ñi nga xam ne ñoom la ñu yaakaar ne ñoo lekk ñoom la ñu jàpp seen loxo ne ñii nag ñoo lekk nan la ñu war a mën a def ba mën ba ñoom ñu mën a fay ay milliards yoo xamante ne bii c'est yoo xamante ne rees na ba pare. non milliards yi mënuñu koo lekk ci benn fan ba pare ay milliards la. mais koy investir seen ay bopp. waaw ñu nangu ko. mais loolu du du xaw a ñaaw trop tamit. loo sàcc boo sàccee jënd ci kaas yu nangu kaas ba jaayaat ko def ko ci réew mi boo sàccee jënd ci ay kër def ko ci ay immeuble ñu ja ñu nangu immeuble. jaayaat ko. Uh-huh. waaw non ak prête yi président wax na ko tey. nee na képp koo xam ne yaakaar nga ni diw dafa dafa sàcc alal bi kii ko ñëwal boole fa boo ko boolee ñu masal la. booleel sàcc ñu masal la. président moo ko wax tey. waaw waaw président nee na képp koo xam ni da yaakaar ne dafa sàcc xaaj dafa sàcc ci xaalisu réew mi l'argent du contribuable ñëwal nga boole ko boo ko boolee nañu la neexal. mais est-ce que loolu du dem nag ba mujj ba mujj euh, tourné waat ci seen maanaam ngeen di topp topp topp ba maanaam ni comme ni ñu koy waxee chasse aux sorcières. Ah, voilà. ba mu sorcière ay sàcc fi am ku sàcc daal da nga génne. mais Sankara littoral bi sàcc suñu suuf si jaay ko def ci lu la neex. saay du yombee noonu gis ngeen bërki démb euh, reportage bi ma def ak maire yooyu ñu sàcc seen i terrain. sàcc ay hectares ectare yu ñëw fekk ay nit jënd ko tabax ko commencé tabax fondement ñoom ñu ñëw jaay leen doole ñëw tas kër yi jël ko jaay ko séddoo ko seen biir nga yaakaar loolu ñu den ko bàyyi noonu. mais ñii li leen yoon may yëpp bu ngeen nar a dem ak ñoom ci li nga xamante ne mooy bataille juridique. ngeen a dem ci bataille juridique est-ce que kon seen cinquante ans de mandat yi ngeen yi ngeen jot a jagleel muy yi du ngeen ko euh, épuisé ci li nga xam ne mooy ay goxel goxel yooyu. non mais euh, xam nga borom da la wëcc noonu mu sedd fa lekk ngeen dem ci bataille juridique. waaw nañ ci dem nañ ci dem parce que réew mi toll nañ foo xam ni lu fi waay defoon lu fi waay waxoon daal dañ ko waxaat ana li wa ana li ñi waxoon ana li gaa ñi defoon loolu suñu combat la ñu ñoo koy porté.